ñu dem ba Paris ci mbeddu Paris yi madame fay Sall première dame ak ñi nga xam ne ñooy militant appaire yi ko daroon nan la mujjee. commencé na sedd sax nag tamit lii dëkk bi temps yi sedd na vraiment sama kii yi ba fàtte woo ko achat yi ñu war a def ak yooyu ah d'accord oh vraiment commencé na sedd moom sedd na. ah vraiment. mais koma comment faire. mais lii nag moom vraiment lu ma lu ma kii la moom. doxantu. vraiment. mais sama commande bi est-ce que demoon nga seeti ko walla woote nga fa. waaw waaw woote naa fa na woote nga ah d'accord ok. ça va ça va def. ça bien merci. Mhm. bien bien ça pardon xaalis bi <laughs> kii moom féex na de ah Sénégalais bi féex nga waaw may jox ko benn enveloppe moom wax dëgg yàlla féex nga trop vraiment de rien de rien kii moom làkkat la nii mu féexee nii ñëw rek te sek nit dama soxla xaalis Sénégal a neex comme Paris Sénégal comme Paris laa la wax nii ah Paris daal a ngi nii tamit du yomb du yomb du yomb du yomb du yomb vraiment kii nga rek noonu noonu ni wax noonu. du premier daaw. ñu ngi si bien. alhamdulilah nekk ni mu méttee. jërëjëf ñu ngi dox mënuñoo am dara yàlla boole ñu ak yow ñu daje yow. dëgg la wërsëgu tànk am na kay am na am na am na am na déedéet kay. macha allah macha allah macha allah waaw man dama leen di encourager parce que ay jigéen ngeen ñëw fii France di takk seen sër ba mu baax di liggéey macha allah ñox mm-hmm. ma benn kii pour yéen ñaar yéen a ko bokk dégg jërëjëf waaw ñaar yéen a ko ah, bokk waaw ah! mais euh, madame excusez-moi àndu leen ah. Macky Sall. ah ñun ñun ñoo eggul Macky Sall. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. jamtaan kay. alhamdulilah. alhamdulilah li ngeen def jërëjëf waay. jërëjëf jërëjëf. lu baax li ngeen def Sénégal. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. alhamdulilah jërëjëf. xaaral ma jox leen waaw. waaw léegi bokk leen ko yéen ñaar. min jaada man ak moom ànd ma ànd ma eh mais na ngeen def ça va ça va ça va ah, ah mais ah ci Amazone yi ngeen bokk maa ngi ci bu baax maa ngi ci jàmm waa suñu si madam suñu lañ jël si madam ànd ñu madam Meng lii tamit leen nii am am bokkoo leen bokkoo leen ko. dégage dégage dégage dégage raw naa Sénégal sax Sénégal sax du ñu def nii xanaa. mais madame mais euh, sooy da la parce que nekkatoo on on kii xam nga. man kay dama ne woon na ànd ak madame Meng mii ñu doxantu nii rek utaale quelques cadeaux ak yooyu rek. oui